ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن fidèles téléspectateurs de la TFM bonsoir maa ngi leen di nuyu amaat mbégte jàkkaarloo ak yéen ci seen émission ziar di émission bi ngeen bëgg bi ngeen safoo ci mois de ramadan bi ma si ànd nag sa su nekk ak euh, oustaz Modou Fall oustaz ngi leen nuyu jërëjëf Adja Cécile maa ngi lay fay nuyoo maa ngi lay ziar maa ngi nuyu mboolem téléspectateur bu jàkkaarloog télévision fitir Média di ndokkeel ñëpp ci weeru sell wii ñu nekk di ñaan yàlla sunu borom lépp loo xam ne jaamu nañ ko rek yàlla nañ ko yàlla nangul ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Adja Cécile jërëjëf oustaz tey nag euh, chers téléspectateurs comme ni ngeen ko xamee rek numéro bu bees invité bu bees ñu am euh, mbégte di recevoir tey si suñu plateau monsieur El as Ass Ndao mu di nag euh, opérateur économique di PDG Nukuman Group ñu ràññee ko nag trop ci Daara Koki monsieur Ndao maa ngi lay nuyu. waaw asubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli Adja Cécile ñu ngi lay delloo nuyu bi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, di sant yàlla bu baax di julli Seydina Muhammad di nuyu Oustaz Modou Fall di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ñuy seetaan ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi. jërëjëf euh, monsieur Ndao euh, yaa ñi nekk euh, opérateur économique nekk PDG tamit Noukoumane Group mais ñu ngi lay gën a ràññee ci daara boobu di daara Koki nga jot fa jaar nag mu nekk daara boo xam ne ne que jël nga ko trop def ko ci sa xol ba yaakaar naa ne mu inspiré la projet boobu di Wadjahidu lan nga ñu si mun a wax. nga alhamdulilah xam nga daara kokki moom mu oustaz Moodu presque man na xam na ni mu fa demee daara koki dafa nekk daara ju nga xam ne e, képp ku fa dem di jàng doo fay benn dërëm dañ lay jàngal ba nga man mën alquran ñu jàngal la arab may la bourse ga dem bi ñu dellu see nag fekk daara ji diis lool wax dëgg yàlla nekk cinq mille quatre cent quatre vingt dix yu nga xam ne ña nga fay jàng te kenn du fay benn dërëm et ñun ñëpp ñuy foraatu ay dërëm ñaar dërëm di fa yóbbu bés nag yàlla dogal suma sëriñ sëriñ maxtaar naarloo yal na yàlla guddal fanam ma ko mu ne ma aas ma ne ko la bay ko mu ne wabtaxi fi ma ataaka laahu daaral axira e loolu e, oustaz Modou Fall dina si ñëw bi ma ko waxee nag e, ma fekk boobu daara ji dund bi xaw na diis yàlla dogal ma ne ko daal li ma man mooy incha allahu rabbi ceeb bi nga xam ne la daara ji dundee jël naa ko en charge ba kerek ba ñu gis la leen yàlla dogal ñu yor ko lu mat at mu toll ci quarante cinq tonnes ñu xam ne ñun mën nañ fi jógee mën nañu ñàkk mën nañu tële mën nañu mën nañu yàlla dogal nag ma xalaat ne daal ñun ñi fa jàngee woon ëpp nañ dix mille personnes man leen mille rek buñ ci dajee kenn ku ne génn un million danañ ko def benn société bu nga xam ne dañ koy liggéeyee lépp lu ci génn ñu yóbbu ko ci daara ji loolu moo ñu inspiré ci wajaahidu yàlla dogal ñu commencé ko le 23 bële passé ba ren yàlla dimbale ñu bañ am 694 millions mu des ñu trois 300 millions ñu waroon ko def ren mais yàlla dogal ak situation réew mi ñu xam ne daal dana xaw a xat ñu ne kon incha allahu rabbi ñu ngi ñaan yàlla daal le 31 incha allah ñu ñëw fii ci quartier général incha allahu rabbi àggale ko fi. loolu daal mooy mooy mooy kii kii li nga xam ne moo ci inspiré. macha allah mu doon euh, projet bu noble. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek ngeen di jaar le 31 incha allah. Mm-hmm. quartier général dans le but de euh, cette collecte de fonds. Mm-hmm. incha allah euh, pour ñu def appel nag bonne volonté ma bàyyi la nga wax benn message rek bonne volonté yi bëgg a participer te yàlla tax. waaw bon loolu moom la ñu waxoon daaw jéeg rek xam nga li ñuy def nii eh, mbir la mu nga xam ne dañ ciy jaamu ñun ñëpp yàlla. ku mel ne moom Modou mi yor na daara xam na daara naka la méttee surtout lu toll ci juróomi junneeg lu tegal xam nga ñooñu dundal leen dafa dafay métti e, moo tax ñu ngi ciy woo surtout waa daara ji daal nañu ci dugalaat seen loxo jàpp ci ba ñu àgg ba ñu am un milliard bi nga xam ne moom la ñu bëggoon bu ne neexee yàlla lépp incha allah dina tegu si yoon. incha allah hmm. un bienfait n'est jamais perdu lépp loo leen si def rek incha allah rabi yàlla bi moom fay dina leen fay. Euh, numéro bii nag maa ngi koy dugal pour collecte de fond bi numéro yi mu ñett numéro hmm. mu di 77. 644. 19 25. 644 19 25 deuxième numéro bi de 77 644 00. 50 644 0050. Le troisième numéro dit 77 637 45 79 637 45 79. monsieur Ndao nag ñu dugg tuuti ci euh, waxtaanu Ramadan bi euh, ma lay laaj rek ban saar moo la gën a neex ci alquran bi ak euh, lan moo tax. alquran moom saar yëpp a neex waaye man nag dama ci am benn aaya bu nga xam ne suma aaya la. mooy wa ufawidu amriya ilallah inna allaha basirun bil ibad loolu nag siru moo tax euh, vraiment daal jàpp naa ne man bu buñ doon seddoo alxuraan bu nit ñi jëlee lépp man bu ma jëlee boobu doy na. <laughs> macha allah léegi ma bàyyi la ak oustaz euh, nga xam euh, question boo ko bëgg poser rek ci wàllum diine oustaz yaa oustaz voilà oustaz ñaari laaj rek laa ko bëgg a laaj. benn bi comme li ma wax comme sëñ Maxtaar li ma waxoon ne ma wabtaqi fi ma ataka allahu daaral axira loolu laay laaj ustaas beneen aaya bi ma koy laaj mooy infiru xifaafan wa siqaalan wa fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum ñaari aaya rek laa ko bëgg a laaj alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyai ginnaaw bi sante yàlla sunu boroom julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu mel ni tey ñu ngi am mbégte lool dalal sunu jur bu tedd bii di alhaaji As Ndaw waaye mu laaj laaj bu am solo ay bi mu njëkk a wax nga xam ni yàlla moo ko waxoon sayduna muhammad wabtaxi fi ma ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia wa ahsin kama ahsana allahu ilayk yàlla dafa waxoon sayduna muhammad ni ko waxal nit ñi ni leen li leen yàlla daganal ci àddina nan ca nekk maanaam bu nu topp rek yàlla ba fàtte ni àddina ci yàlla la bokk yenn saa yi nga gis kuñ ni dafa dëdd àdduna yàlla ni dëddu àdduna dafa am façon jaamu sunu borom teewul yi ne ci addina ta dagan nga jëfandikoo ko boo waree am kër gu rafet wut ko boo waree am oto bu rafet wut ko loo war a am ci àddina te mu dagan te taar taaru àddina sunu borom nee na demal nga topp ko waaye loo topp loolu lépp lépp wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fàtte la yàlla defal ci àddina waaye bul fàtte it la yàlla dig ëllëg yowmal xiyaam maanaam bi nga nekkee ci àddina dee liggéey loo loo loo loo am ëllëg ndax fii këru profito la yàlla nee na bul topp kër yu rafet yi bul topp alal ji bul topp bànneexi àddina ba fàtte sa ëllëg moo tax sunu borom wax yonent bi ni ko waxal nit ki nekk ci àddina na xinte woo ñaar mooy na bien fii bien fële beneen aaya bi muy wax yàlla moo ko wax ci alquran te moom loolu mooy slogan am yàlla moo wax sayidna muhammad ni ko xintewu leen njëkkante góorgóorlu rey seen bopp ci lan ci jéem a génnee seen alal financé ko ci yoonu yàlla bu ngeen ci dee ñàkk seen bakkan ñàkk leen ko ci bu ngeen ci dee ñàkk seen alal ñàkk leen ko ci te yàlla rek tax ndax ku ne xam na ni jamonoy sayidna muhammad xare ba amoon mooy war fas yor sa jaa si jàkkaarloog yéeféer yi waaye yàlla nee na jamono bi ñëw beneen façon xare mooy am xare bi am nag mooy gis yoon woo xam ne yoonu yàlla la gis loo xam ne poos moo cay participer sunu borom nee na boo ko defee mel nga ni ku xare kon ñaari façon xare ñoo am am na koo xam ne ci alalam lay xaree am koo xam ne ci bakkanam lay xare xare xare bakkan amatul waaye xare bi am jamono bii mooy fekk néew ji doole ji nga dimbali leen fekk daaray alquran yi soxla woon dimbal nga jël sa alal def ci daaray alquran mbokk yi mi ngi noonu ñaari aaya yaa ngoog yal na nu yàlla defal déggu ànd ak topp Adja Cissé. Chers téléspectateurs l'émission touche à sa fin mais balaa boobu dañu si euh, profito pour remercier suñu sponsors yi ku ci mel ni euh, waa groupe Senico ak seen pâte alimentaire Amira nee naa leen boo leen di tàmmu pat rek na ngeen di euh, tàmmu pat alimentaire Amira variété bi bëri na da ngeen di am ci ñoom spaghetti macaroni ak vermicelle. Pat Amira ñuy remercier également margarine Kadi neex na à tartiner ngeen mun ko utiliser si seen togg c'est léger et c'est raffiné. ñuy remercier euh, suñu sponsor boobu noonu di Orange Money ak seen application boobu te xam ne ne que franchement c'est vraiment fiable. c'est sécurisé c'est pratique service yi ngeen daan am yëpp ñu rassemblé ko dugalee leen ko ci euh, benn application muy Maxit ñuy remercier également Ndiaye Jesner Ndiaye Jesner nag euh, borom sañse yëpp xam neen ko ndax ci moom la ñu wutee tissu muy jaay tissu en gros di jaay euh, tissu en détail broderie Jesner lépp loo leen soxla rek ci tissu yu rafet mu ngi foofu ci Ndiaye mu ngi nekk Pikine tali bu mag marché Zinc 78 575 11 03 ñuy remercier euh, aujourd'hui spécialement jus original ñu recevoir woon euh, le PDG de Nukuman Group ñoom ñii di def distribution bi au Sénégal et dans la sous-région jus original nag mu ngi nekk jus bu neex boo xam ne boo koy naan sax di nga sentir ne nekk jus bu naturel la ndax pulpe di nga ko sentir ci biir. mais jus <laughs> bi boo koy naan doo ba yàndoo. Badou en tout cas. naturel na neex na sans colorant ni conservateur euh, ñuy remercier également waa Sénéfoot ak le lait Nour et le céréal Mélolac pour les bébés chers téléspectateurs merci beaucoup nous vous donnons rendez-vous demain inchallah euh, à la même heure si seen chaîne télé préférée TFM merci kalpe bi gën a yomb gën a wóor moo leen di ñaanal kooru jàmm Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal